asalaamaaleykum mbokk yi ma jottali leen communiqué bi bàyyi ko ministère de la santé de l'action sociale tey ba su fukki fan ak ñett ci weeru février nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique bi may wax del junni ak juróom-benn téeméer ak fanweer ak ñett test yi ñu def ak ñett fukk ak ñett ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci fukk ak juróom-ñeent sans contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak yore doomu jàngoro amul ci benn cas importé mooy maanaam li jóge bitim réew waaye am na ci juróom-ñeent fukk ak ñeent ñi nga xam ñoom lañ tuddee cas communautaire ñooñu nag seen lim ni la tëddee ci Ndakaaru ak li ko wër am na ci juróom fukk ak benn ñi nga xam ne nii la nekkee ci gox yi fukk ci Dakar Plateau juróom benn ci Ouakam ñeent ci Fass ñett ci Liberté 6 Mariste ak ñaar ci HLM Grand Yoff Zac ak Amitié 2 benn ci Médina Colobane Gibraltar Fann Résidence Waguñaay Yaraax Point E Almadies sacré Liberté 1 Cité d'Amel Keur Liberté Liberté 3 Pikine ak Yeumbeul ci yeneen région yi am nañ ci ñeent fukk ak ñett te lim bii nii la tëddee juróom-ñaar ci Thiès juróom-benn ci Kaolack juróom ci Kolda ñeent ci ak Sédhiou ñaar ci Foundiougne ci Kédougou Kër Massar Fassi ak Touba benn ci Bignona Darou Mousti Kombol Mbour Ndofane Saint-Louis ak Vélingara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 ci bësu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak ñett ak ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci ñi nga jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak juróom-ñaar ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ak ñeent wér nañ si juróom-ñeent téeméer ak fanweer ak ñaar ñàkk seen bakkan mu des ñeenti junni ak juróom-ñaar téeméer ak fukk ak juróom si lal hôpital yi ak malade ña xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër la santé et l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu génn àdduna yàlla xare leen àjjana di ñaanal ñooñu des hôpital ak ñi nga xam ne ñu ngi ci biir kër yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm. ministère de la santé et l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu gën a sàmmonte ak digle yi mu joxe bés bu nekk di leen wax na ngeen aar seen bopp aar seen njaboot aarale askan wi di bàyyi xel ci mbir di sol seen di mu waree masque dafa ak bakkan. di raxas seeni loxo saa su nekk ak loxo saabu wala di jëfandikoo di jël yu ànd ak qualité te nga xam ne di teel a dem dispensaire wala hôpital bi ñu gën a jege wala di ak seeni docteur saa bu ngeen ko nga bi dafa xaw sutantu ñi nga xam ne aussi Sénégal yi yoo xam ne ak ñi dund ci biir réew ñoo xam ne jeen leen a jagleel yi ci tàmbali à partir de tey nañu fexe ba jokkoo ak seeni dispensaire hôpital wala seeni docteur ba ñu mun a egg ci vaccin yi ni mu waree ak ni ñu ko digle ministère de la santé et de l' action sociale ministère de santé de l' sociale ngeen di sant di leen gërëm.